waaleykum salaam wa rahmatullahi wa eh, ñoo ngi delloo nuyoo mbokk mi suñu mbokk xaadimal Qur'an di nuyu itam mbooleem waa bi ak mbooleem groupe yi bànqaasoo ci group bi te fas yéene taataan waxtaan wi ñu fi na fas yéene waxtaane waxtaan wi aju ci xuturatu sexri wa afatuha danger ak bu mi nek ci ak njibar ak gaaf gi mu njabar kat nak suñu borom doyon na rek wax ji mu wax ni wala yuflihu sahiru haythu ata njabar de ab kat du am jam du am texe du am barke ak fépp fu mu mën a jublu fépp fu jublu yiwu yàlla du fa jublu moom njibar bërëb bu mu wàcc bërëb boobee tàggoo naag barke bépp wàccuwaay bu ab njabarkat wàcc foofee barkeb suñu boroom toxoo na fa dem feneen yiwu yàlla toxoo na foofee dem feneen képp ku héberger ab jibarkat ci sa kër boo yeboo ni yegal ni héberger nga li ñuy tuddé aw ay héberger nga char héberger nga musiba gaaf dikel na la barké tàggu na la ku ko héberger ci sam réew indi nga problème ci wa réew ma ku ko yaatal ci sa njaboot yàq nga sa famille détruire nga ko te yego ko ndax nak wala yuflihu sahiru haythu ataa loolu suñu boroom moo ko xibaar te nag faman asdaqu min allahi qiila ana kan moo gën a dëggu yàlla ay wax li tax njibar bon mooy ponk bi nga xamante ni moom la ñu tuddee alxadar muy dogalub suñ boroom njabarkat moom dafa ñëw ni daf koy màbb dafa ñëw ni yàlla mii ngeen ni mooy dogal dogalut man mii may dogal am njabarkat lisaanu xaalam dafay weddi dogalub suñu borom saxal dogalub boppam kon jël na garaate suñu borom mu dindi ko rang ko boppam ba pare njibarkat dafa defiye yàlla suñu borom loolu moo tax njibar di lu danger képp ku ci laal lu ndaw ndaw gaaf ga dana la topp bi kemtalaay lu tolloog la nga ca laal waxtaan la woo xamante ni nag wax dëgg yàlla yaatu na ci groupe yi borom xam-xam yi di ko talabatul ilmi yi di xamle ni musiba gënu koo rëy moom njibar ci ki koy def ak ki koy def ak ki jàppale kenn ci ñaar ñooñu ki koy def muy njabar bi ñu koy wax asaaxir moom ambassadeuru iblis law ci kaw suuf ki koy def lu moom ab aliyem la kiy jàppale kenn ci ñaar ñi kooku ab complice la boo xamante ni ma ngay complicité ci wàllu njibar wal billah mbokk jullit yi waxtaan wi nag du gudd tay incha allah dama leen di indil benn xadis boo xamante ni rek mi ngi xew ci yoor-yoor gi ñu dence yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi keroog bi mu faatoo ñu koy set denc ko dafa am lu xew Madina lu doy waar loo xamante ni ابن جرير التبري عندي نكو تي تفسيرم الامام ابن كثير عندي نكو تي تفسيرم موي حديث بو وير نдах بو خولي الامام ابو جعفر ابن جرير رحمه الله دا فا وخني اخبرنا الربيع ابن سليمان اخبرنا ابن وهب اخبرنا ابن ابي زناد حدثني هشام ابن عروه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم من جل ننشي خبار لما كني وخ الربيع بن سليمان مجلتي ابن وهب مجلتي ابن زناد ابن زناد وخني هشام ابن عروة نبتلي نجلتي عائشة سخنا سيننتي بي صلى الله عليه وسلم ni def koo mës a dikkal seen soxna soxna sama nga jóge woon réew muñ naan dawmatul jëndal soxna si bi mu dikkee yonent bi la laaj ni yóbbu leen ma ci yonent bi yonent bi laa soxla ci moom laa am soxla may leen ma audience ma giseek yonent bi waaye fekk na boobu ñi doon denc yonent bi ñu ngi door a siggi ci bàmmeel biñ ko denc ah soxna si dikk aw xelam ànd ak njàqare lool di laaj yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tana Aïcha ni ko ah yonent bi day denc nañ ko léegi soxna Aïcha mi nettali Urwa nga xamante ni doomu sërëm la nee na Urwa waaw bi nga xamante ni gisul yonent bi ñu ne ko faatu na lu mu def soxna Aïcha nee na dama koo gis moom soxna si muy jooy jooy yu metti jooy yi moom metti na lool neena ma yeureum ko ci joy yi yeureum ko lol ba ragal ni joyam yi sax man nako indil tawat ma ne ko waaw yow lu waral ngay joy bi nga laaje yonent bi ñu ne la denc nañ ko ba noppi neena soxna si ma man dama yoron sama jëkkër nak xey rek faddu manam dem gisatuma ko ma bëgg jotat ci mom aw may pexé néna bis sen soxna su magat dikkel ma magatum yor-yor dikkel ma sama kër ma tawat ko sama mbir xamal ko ni man kat sama jëkkër ñibbisi rek la bëgg néna mu dal di may digal ak njibar. Nina amna lo xamni day soko nango suma lako defale sa jëkkër ji dana delsi ma ni ko man kay nanguna man kay loma digal ma def ne soxna si ni ma waa baax na ba guddii nee guddii jot soxna si dal di dikkat fekk ma ci kër gi indi ñaari xat yu ñuul indi ñaari xat yu ñuul nee na dal di war ca benn xaj ba ni ma waral ca ba ca des kon soxna si moom ab njibar la moo xam ni moom am nay diplôme am ci wàllu njibar ba mu mën a ànd ay xaj yoo xamante ni jëmmi xaj lañu yor waaye ñooñu ay jinne lañ ay shayatin la àndal ñu yor jëmmi xaj yu ñuul mu war ci benn seytaane ba warloo ma ca ba ca des nee ab diir rek ñun ñu egg Baabil Baabil ca Iraq nee na bi ñu egsee ci bunt dëkk bi ñu ngi fi fekk ñaari waay yoo xamante ni bunt bi ñu nekk boo yeboon dañ leen dañ leen dañ leen wikk ñuy lang seeni bopp féete suuf seeni tànk féete kaw ñooñi nag dal di ñuy laaj waaw lu luy seeni tànk soxna si ki nga fi indi lu fi def nee na ñu ne dañuy jàng ak njibar dañoo bëgg ak njibar dañuy njabarlu dañuy njabarlu nee na bi ñu waxee loolu ñaari gaa yooyu ni ñu innama nahnu fitnatun fala takfuri farji'i ñun fitna lañ kat bu la weddi yàlla dugal ci denn mbir ndax ñun and ñun wedd yalla la kon nak ñibil neena na ma bañ ndax loolu ko mer bi digal soxna si loolu ko digal ñu ne ma ah, comme nak defi de nga demal ca le nga xani ni mel na ni ab and nga saw fa nga jonkan tour fa ndox way fa neena bima exé sama yaram dal di frissoner Makawari bopi manam, yi taxaw manam lam gis ca lolé melni ni ànd lu sel la turu yalla la mbir buñ wara wormal lay doon ah xam nga ni ñi bari ñom lañu yor dañ koy jaay te ñeeg gi moy sa diine barkat yi lañu yor diko tuddé pajuk aajo dañ koy jaay de te luy ñeeg li moy sa l'islam boo nangoo joxe sa diine dal ñu jox la lañu yor diko tudde fajuk aajo motax ndaw ci bi mu décider ni day dem ñu ne ko kon demal nga saw fe ndax fofu ñukay saw lo mom ndaw sa bam demee gis na fa lo bu ci sawé takaliko nak l'islam ma di am frisson daal di tiit sawuma ma melni kuy saw waye sawuma ma delsi ñu ne ma ndax saw nga mani len waw ñu ne ma lo gis mani len dara gisuma dara ñu ne ma yow nag wo defo liñ la sant ni ma irjii ila biladiki wala takfuri bil sam rew ta bañ baña wedd yalla neena na daldi daal di sikki sàkka daal d'accord ni man ñibbiwuma damay jabarlo ah ñu ne ma nag charte bi moom liñ la waxoon rek bu dee daal da ngay njibarlu te décidé nga demal ca leemal nit ànd nga tuur fa ndox sanguwaay fa nee na ma demaat takk sama fit jéem jéem jéem waaye daal la ma tiim ma cee saw ma dellusiwaat ni leen tuur naa fa ndox ñu ne ma loo man ni gisuma dara ñu ne ko waxu dëgg kàcc nga kazabti kazabti lam tafali kàcc nga defoo liñ la sant dellul ci sam réew te bu la weddi yàlla dugal ci dara ndax yow kat yaa ngi ci sa buntu muccukaay benn tànk dong nga nekk ci biir booy jéego di génn kon nag yaa ngeeg sa sànni ñibbil sa dëkk te bàyyi lii ngay def nee na ma sikki sàkka ni leen déedéet damay njibarlu takk sama fit nee na ñetteelu yoon bi nag ba ma demee takk naa sama fit dal di saw nee na ba ma sawee damaa gis lu mel ni ak ngawar ngawar mooy ku war ci fas nee na loolu dañuy bëxër ñëpp génne ci saa jëmm jii ma nga laxasoo yi weñ génn ci sama jëmm ji mel ne lu def saxaar naaw dem asamaan nee ma teen di ko xool ba gisatuma ko ma dikk ñu ne ma ndax soow ma ne leen waawaaw ñu ne ma loo gis ma wax leen ngawar gi ma gis gis naa ngawar goo xam ni làmbaayi weñ la laxasoo naaw génn ci saa jëmm ji jëm asamaan ma di ko xool ba gisatuma ko ñu ne ma nag sadaxti wax nga dëgg ñu ko zaalika imaanuki xaraja ki sa ngëm yàllaa ngoog sa ngëm yàllaa ngoog nee ba xar ñett génn ci yow tàggu na la te dootu delsi dem na ila yawmi diin ma ay ñibbil mani a ñibbi soxna si andalon maniko man janguma ma dara di ñi kat dañ ma def lo li ma def ba nopi ñu ne ma ñibbil mu ne ma dedet legi dugg nga ci réseau bi legi membre nga legi lo bëgg rek li nga def mo la koy tagatal dima bo ci bëgge am lu leer dal di jël barup dugub manam dal di tibbu ci loxom dugub ni ma jëlal pep mi gis nga ko mané ko wa mu ne ma jiko legi, ma jiko mu ne ma nee ko saxal mané ko saxal mu dal di sax ñoral mu dal di ñor nee na la def dal di def bokku ci réseau bi nekkum jibarkat di def nit ñi di ci tek seen bëtt ne mu ne ma dugub jooju ne ko bojjal sa bopp soqal sa bopp lu ma ko sant mu def ah léegi nag soxna si bi loolu amee nee na ma daal di tiit nag tiit borom xam-xam yi ni kooku lan moo ko war a tiital ginnaaw ngëm yàllaam génn na ci moom dem am ñu tontu ni alfitra fitra bi mu déssé moy ceeñeer nonu yor déssé ak lèr ñenn ñi ni dédé ngëm yalla ga ba roccé ko dem yenn tak tak ngëm yalla yam fa ñi daatu ya déss ta xol ba moy léral loolu tax mu tiit bam jurul ko ak réccu nee loolu nag moo tax soxna si dal di samp aw xelam jawali madina waaye malheureusement ñàkk tawfiq daa egsi net fekk ñuy denc yonent bi saai sallam na ma rëcc lool nee na ma ni yox soxna Aïcha wallaay loolu ma ca mën nga xam ni def naa ko ba yor pouvoir boobu taxul ma bëggaat dara ci àdduna nee na mosuma koo utiliser yonent bi la bëgg gis mu won ma fi may jaar Zulaysha ni ko ah yonent bi def dëgg yàlla denc nañ ko léegi sahaba mi mi yaron nak ñi ngi fi di ay borom xam-xam neena na ma laccé sahaba yi ñu wax ma leen neena na képp kuma rew ci yow netti la sama mbir li ngay ñëk def moy dajale say dal ut yoon wo jaar sahaba yi duñu fatwa ci mbir mu leen wóorul bu amul xam-xam te mbir mi egg na fu rëy foo xamante ni bëgguñu cee wax képp kum ko wax yoon woo jaar ngay seet jéem daw mucc sori ko soxna si nekk ci jafe-jafe boo xamante ni suñu borom rek xam mbiram abdullah ibni mas'ud daal moo tontu ni ko ndax say ñaari wayjur amna ko ci dundu mu ko dedet mu ka ah, bu fekkonte ni kenn ngi dund ci ñom ñaar day ma amal la wae waye comme dundatul day sa ka mom dina critique kon nga gis ni soxna so si nga xani mo moo won dawmatul jandal te liko ko won fofu moy njibarlu xoolal mbiram fi mu mujj kooku ngëmum yàllaam googi ndax suñu boroom dana ko ko delloo ndax am na ay jëf yu muy jëf yu ko delloo siwaat ndax am na taw ba gu ko suñ boroom di nangul yooyu yëpp ay laaj la yu ne ca kanam ala xaal li ñuy jàngee ci xadis bi mooy xuturatu sixari wa afaatuha danger bi nekk ci njibar ak gaaf gi mu àndal mbokki jullit yi xam ni njabar day doyul nga weddi ko sori ko wan ko ginnaaw wan mboolem ginnaaw képp kuy njabar ak njabarlu doyul waaye war na caa bokk ko xeex xeex gi waxu ñu xeex ci violence waye xeex ci leral xeex ci jangale xeex ci sensibiliser julit ñi xamal leen jabar moy lan leppam gafu la ye ci jigen ñi na mag ñi nga xamanteni ni lek ak ñaan lañ koy tuddé mbir sangam mbaa yaa ngi ciy ñaanlu nga ni waa maa ngi defi ñaan de bo démé xol lamuy tuddé tudde ak njibar lay doon ñoo ngi ko cey laaj ginaar gu weex ñoo ngi ko cey laaj ginaar gu xonq ñoo ko ce laaj ay tusi ñoo ngi ko cey laaj maare deytaal yi laaj ko ci xaalisam mu booleeg bakkaaram te lañ koy dig ci pajuk aajo du ko ca fekk waxuma naag nag teqale gi muy teqale famille mag ak rek ñaata la ay njabarkat boole ndey ak baay boole baay ak doom boole doom ak yaay ki dem ci gisaane kat mu yàqal la ña nga dëkkal wax ni kii nga dëkkal soxna si mi ngi ci yow nangam bi tax seen kër gi am fa loolu ab def la dañ koo dij dañ koo naawtal dañ koo sànni kort kàcc ci kese dara wéru ci boole laak say bokk nga am ak ñoom coow dootoo jub ak ñoom àdduna ak àllaaxira te moom njabarkat bi ci boppam la mu ndikki dem bu fàtte dara li muy wax wóoru ci dara wérul ci li lay wax kon njabar dañ ko war a moytu sori ko sori kuy njabar sori kuy njabarlu yee xale yi teel a jàngal gone yi bi ñuy ndaw ñu teel leen a jàngal ni laa yuflixu saaxiru xaysu ata jàngal leen ko ci ay adillay quraan yu leer jox leen ci ay tektal yu leer kon xam naa dañuy taxawlu fii